mbokki Louga ñoo ngi leen di nuyu ginnaaw bu ñu jiitalee ci nuyoo bi les maires du département de Louga boo limee da ngay juum leen wax ne tey dama am mbégte mu rëy ndax dama ñëw fii sax tey am jigéen ñoo xam ne maa ngi leen gëj a gis depuis élection 2014 xom ma nag lan ma ko waral bopp yoo xam ne 2014 laa gisoon ñu ànd ak man dañoo ñëw ci manifestation tey ñoom ñëpp ñu tey toog ñu ko waral nag xam nga tey ñoom ñëpp ñëw na tey eh, kon nag may sant jigéen ñi dafa am lu ku lim da ngay jum fàttewuma ci may sant nag di gërëm spécialement jigéen ñi Louga amuma seen fay ndax gis naa ne ba ma ñëwee Louga ba léegi ñu passé campagne di jàppale son excellence le président Macky Sall comme maa bu ma nekk yéen jiit takk seen i jox ma ndam balaa 19 heures jot kon ngàcca ngàllaama sama jigéen ñi gañeloo ngeen élection locale ma ñëw ngeen amaat confiance ci man joxaat ma référendum bi au conseil ma ñëw ngeen joxaat ma également législative yi ngeen joxaat ma ko te ni ma leen ko ñaane incha rabbi

ñu mën a def am nañ ci man jafe bu nekkoo man xam naa ne même bu ñu campagne ñu woon dinañ ma jàppaleel président Macky falu dès le premier tour. loolu nag bu koy préparé moi je pense que yàkkamtee